nit ki di mën a wéetal yàlla boo doon ab jullit piir su ko defee nag sikk amut ci ne baat bii dañ koy wax jublu ci maanaam gëm yàlla waaye nag day mel na li ñaan tasmeetu yi moo lit sa la nit ki daam am tudde ab jullit nit ki bu nangu woon yi yépp wéetal na ci yàlla subhaanahu wa waaye ci misaal moom gëmut yonente bi sallallahu alayhi wa ndax kooku dañu mu waxit la déedéet kooku du kon tawxiid day mel ne dara rek ci gëm yàlla maxnaa bi cosaan wante nag léeg-léeg dañuy fab ba tawxiid jubli ci lépp loo xam ne lépp lu aj ci gëm yàlla la rek nga xam ne ponk lislaam yépp da ciy dugg kon ku ne moom soon wax nii aan kooku duñ ko jàppee ku am tawxiid kon sens bi mu yoroon ci cosaan ak maxnaa biñ ñu jublu maxnaa bi ñu jublu daa gën a yaatu labaat bi daa tekki kon loolu lu am solo kon pas-pas it soy gi bis mi jus ihi mbir ñu tudde ko loo xam ne dara la ca moom rek te loolu lu arab xam la su ko defee nag xam-xam yi dañ ko tudde ilmu tawxid mu moom téere dañ ko tudde ba tey ilmu al aqaid comme ni muy waxee ci bayir bi njëkk ilmu al aqaid bila bila dalili dañ koy wax ba tey léeg-léeg ju eh, indi jëfandikoo baatu al fiqhu al bi gën a mag dañ koy wax ba dañ léeg dañ koy wax dañ koy wax ba tey jëfandikoo baatu usulu diin cosaanu diine yi kon bari na ay tur yoo xam ne ñoo wundu maax naa bi nga xam ne mooy maanaam gëm yàlla mooy maanaam passeport yi nga xam ne moom la jullit bi war a yor bari tegtale xam-xam bii ndax arab dañ daa wax naan mbir saa yu baree ay baat rek day teg tegtale ne euh, borom borom baat boobu borom turu moom turu màgg la maanaam jëmm bu bëree day tegtale moom borom moo tax xanaa gisoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu bëree ay tur li ko waral mooy màggaay jëmmam moo tax mu bëri ay tur xam-xam yi ba tey daa bëri ay tur waaye ngeen màggaayam moo tax mu bëri ay ay ay ay ay tur su ko defee nag xam-xam bi bu ma ta yittewoo la jullit ñëpp wala nit ñëpp liñ bëgg mooy faatu dem àjjana te nit ki munta dem àjjana ci amut pas-pas pas-pasu lislaam nit ñëpp liñ bëgg mooy munta mucc la may pas-pasu lislaam dor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis bu siiwam ba ne giñ naa ne kenn ci gaañ yi du dégg du ma bañ a gëm bañ maa gëm lu may daa bu faatu daa bokk ci waa sawara waliyaasu billaah wallazi nafsu Muhammad bi yadi bi yadihi laa yasmaa bihi min haadihi l laa yahudin wala nasraaniyun summa laa yuminu bihi illaa kaana min ahli naar aw kamaa qaala sallallaahu alayhi wa sallam mooy xadis bu wér boo xam ne mu ngi ci téere yu wér yi mi ngi Saxiix Muslim Euh, téewlatum Buxaari Buxaari ba tey waaye mi ngi ci saxiix muslim moom kon euh, nit ki bu bëggee mucc sawara faaw am pas-pas xam ko bu wér bañ ciy dugal lu ci bokkut bañ ciy génne lu ci bokk boo bëggee dem àjjana tamit am pas pas-pas bu wér kon bi njëkk ci njariñam mooy njariñ li ca njariñ li mooy njariñ li gën a mag ci nit doomu aadama lu mën a am ca mucc ci sawara lu mën a am mel na ni amul dara waaye ba tey bokk na njëriñam mooy day dimbale nit ki ci mu am ak dal nit ki bu amee pas-pas dëggantaan dal ci gëm dogal bi nga xam daa bokk ci pas-pas yi nit ki war a gëm nit bu gëmee dogal gëm ne lu am yàlla moo ko dogal lu amut yàlla ko loolu ak lu day jiital dogal bi xam ne kat lii kat ak lu ma ko bëgg bëgg bëgg ak lu mu jamtal ne danaa ko am day fekk nag dogal ba méngoowul ak loolu waaye lu ma ci santoon ak lu ma ko bëgg-bëgg bu fekkee ne yàlla bindu bindutoon ci ësal du ma ko am du ma ko mën a am nga xam ne kon loolu ngay nga doon wut loo son sonson ak loo ci bëgg-bëgg bu la ko yàlla xañee teewu da am da ngay mën a nangu loolu da am xel mu dal ci ne kat mbir mi du cee gën sabab lu ko sax moo cee moo cee maye waaye nag dogal yàlla faaw da cee jiitu naka na ba tey lu la dal tamit nag ak lu met met ne ko dogal yàlla la wax yàlla moo bindoon cël ci na dogal bi faaw mu jot la moo tax lu la mën a jot doo saalit loolu salaasam da wax naan yéemu naa daal ci mbirum jullit moom daal bu amee lu neex bànneex day sant yàlla muy aw yéewam bu fekkee ne euh, tartar da ko dal ak lor day muñ muy aw yéewam ba tey loolu ab jullit kese ko am kon dalak xol ci boppam daa bokk njariñi pas-pas ak yeneen njariñ yu bari waaye lii doy na sëkk ci ay njariñam euh, kon ilmul aqaaidi bi amu idraaku shay maahiyatihi wala ala xaqiqatihi noonu la ko boroom xam nga xam ko nam nekk maanaam xam goo xam ne daal amul njuumte nga am yaqiin ci ne lii lii la yaqiin goo nga am ci ne lii lii la dëppoon ak la am wala ci beneen temps beneen beneen taarif ci usul ñaar noonu lañ koy jëf noonu lañ koy taarife ba dañ naan huwa al i'tiqaad al jaazim al mutaabiq li muujib al i'tiqaad al jaazim mooy loo fas joofi woo ko waaye da nga ci am yaqiin loolu mooy al jaazim al mutaabiq ba noppi mu dëppoog li am ñi ki ñi ki ñun niñ gëmeen yàlla am na loolu luñ gëm la yemuñ di ko jort yemuñ di ko sikk sàkka waaye dañ ci am yaqiin waaye loolu mooy jaasim kon ba noppi al mutaabiq loolu muy dëppook li am loolu muy dëppoog réalité loolu muy dëppoog li am léeg ngis koo xam ne mën naa am pas-pas boo xam daf caa dogu waaye la dëppoog ci misaal falaasifa ne aalam bi àddina bi ñu dund nii kenn sasu ko mu jaral lu ne ñu yàgg caa coow yàgg caa werante bind ci ay téere ba tàyyi sonn ca yàgg caa def ay munazar ak i débat ak i werante waaye ndax loolu dëppoon ak li am loolu dëppoo ak li am loolu dëgg loo xam ne pas bu dëppoo ak la am lay doon al mutaabiq al mutaabiq la xam ne mu dëppoo ak li am waaye tamit li moo jib sa pas-pas boobu sa dogo googu nga am ci mbir mii li koy waajib na ci nga sukkandiku maanaam léeg-léeg nit ki dana am lu mu dogu lool ni lii noon la dëgg loolu sax mu dëppoon ak li am wante moom day amutoon benn preuve benn délit ñu koy moom ci am na dafa comme loon rek am na ko wax daal walla mu mu gis kuy jëf mu sukkandiku ci loolu ci ne kat kon lii nii la waaye amutoon benn moom moo jib loolu gën tax xam-xam dëgg loo xam ne kat eh, da am foo sukkandiku nga xam ne yow ñëpp buñ ko weddi woon teewu de da ngay des di ko gëm ndax ba ngay gëm wala ba ngay xam lii sukkandiku woon ci nit ñi waaye say preuve bopp moo la ko jox kon loolu may xam xam-xam ilmul aqaidi bi la dalil ilmul aqaid al aqaid baat la boo xam ne jamoo la al aqaid mooy jamoo aqida aqaid tëggiin faa'il la yor mu bokk ci jamhu taksir yi jam yi nga xam ne sarfu lañ mufrida mooy tëggiin faa'ila faa'ila faa'ilatun euh, dañ koy jamoo faa'il bu fekkee ne ismu la aqaid jama aqida aqida ismu la am xay na day ñëw insha allah cosaan eh, dontun ismu wasfu la woon ji aqada gi firi fas na kon aqida kon luñ fas maanaa boobu maanaa boobu la yor eh, wante dañ koo itlaaq ci mbir moo xam dafa mujj doon ismu ci moom wasfu gi day mel ne xoolatuñ ko bu boobaa nag mën nañ ko jamoo ci tëggiinu faa'il moo tax aqaay jamoo aqida la aqida nag mi ngi jóg ci aqada gi fir fas la ada mooy fas na fas ma takk bu dëgër ak buum lan moo tax jàng ñu koy tudd loolu ndaxte passeport yi ñuy jàngale jullit bi daf koy fas ca biir xolam fas ko takk ko ba mu dëgër ngir mosaa yor tëkk bu ay du fecc ko jullit ba tey pas-pas yi noonu la mel ci xolam da koo yóbbu ba ci biir xol mu takk ko fa takk gu dëgër goo xam ne du fecc mu ne elmul aqaayid kon xam-xam aqaayid yi aqaayid nag ci lislaam am na ay ponk ponk yi mooy lan mooy juróom-benn yarootuñ ci xadisu jibril xadis bu siiw ba jil ñëw di laaj yonent yonent bi sallallahu alayhi bu siiw la waaye ba mu ko laajee lan xabaar lan muy gëm yàlla daanaka an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tu'mina bil qadar xayrihi wa sharrihi wa umurihi juróom-benn yooyu mooy ponki gëm yàlla yi gëm yàlla an tu'mina billah gëm yonente yi gëm téere yi gëm malaayika yi gëm bis pénc gëm dogal bi bunt yooyu lañ jàng ci tasawudu saxaar lañ Seexul Xadiim jàng ci jàngal ci tasawudu saxaar téere yi bari tamit moom lañuy jàngale kon juróom-benn yooyu mooy ponk yi nga xam ne mooy ponk gëm yàlla nga xam ne benn mënu ci manqué benn rek mooy ne moom du mooy mooy mooy amul ak ngëm ndax ngëmuñ lépp day amandoo mu baax wala dara pànkeendoo lépp daal bon loolu moo tax ponk yu demee nii moom wuut et kulliyaat xam ne kenn wuutu xam-xam jullit ñi am na ay forona ay détails yu ndaw yoo xam ne wuute mën na ca ci misaal bu ma ne bis pénc gëm koo munta ñàkk farata la ci jullit ñépp dëppoo nañ ci képp koo xam ne gëmul bis pénc rek kooku nañ jàpp waaye nag mën ngaa am loo xam ne lu aj ci bis pénc la ay détails ay jusiyaat yoo xam ne a xam ne dañ cay wuute yooyu léeg-léeg maanaa euh, wuute da ci maanaam boo def ñu jàpp ñëpp ay jullit lañ ñëpp ay jullit lañ loolu moo tax ci ci xadiisu euh, Buxaari ak Muslim soxna Aïcha radiyallahu anha xamutoon ne la bàmmeel def na fa mbugal maanaam mbugal bàmmeel xamu ko woon ba bis ay yahud ñaari yahud ñaari jigéen yahud ñëw dugg ci moom tudd mbugalu bàmmeel nee na nee na ma ma euh, dàq lañ wax loo leen fa kadabtuhuma walam an usaddiqahuma noonu la ko waxe waaye bañ génnee nag yonent bi salaa dugg mu laaj ko salaa salaam daal dëggal loolu nee na dañu ma di dégg yonent bi salaa salaam muy musal ci mbugalu bàmmeel nga xam ne kon loolu mbugal mbaam lu aju ci bis la ndax nit ki bu xasee faat rek moom bis péncam taxaw na moom mooy alqiyaamatu suxra ni ko suñ Tuubaa di jàngale ci tasul saxaar ida alqiyaamatu qiyaamataani suxra mamaati kulli ma insaani wa baada al kubra wa tilka nafxu fi suuri laa yati ma bi ma bi fasxu kon foofu noonu Aïcha kenn dina amatul ak ngëm yàlla njëkk muy xam pas-pas boobu noonu ca mooy mbugal waaye kooku détail bu ndaw la boo xam ne dafa dugg ci biir cosaan bu mag boobu noonu kon li ma jëlee wax foofu mooy ne léeg-léeg rek mën ngaa amee ngeen détails yoo xam ne wuute mën na caa am wala sax kay jullit bi réere ca dara ci déew ci teew ñu jàpp ne ab jullit la waaye nag yu mag yi nag moom wuute amu ci moom bu ñëwee yi ci ñu ndaw nag faa wuute ci am loolu moo tax xaqaayit euh, ay madaris am ay école nga gis masalan madrasa al ashariya al madrasa al athariya al madrasa al maturidiya ñooñ am nañ ay détails yu ndaw yoo xam dañ caa wuute waaye mën ngeen kulliyaat yu mag yi mu wuute amu ca ci ñoom waaye nag am nañu détail comme bu ñu demee ci masal buntu sifaat yi mele borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne dañuy tawil ñi nga xam ne dañuy tafwir yu nu demee waaye ñëpp dañuy dëpp melo yooyu ci borom subhanahu wa taala kon ilmul aqaid bila dalili yajibu ijmaan neen daal nit ki xam pas-pas pas-pas yi nga xam ne moom lañ ko togg mu xam ko pas-pas yi ci ñaar lay composé mooy saxal ak weddi ñaari faaw ñu am faaw da lii gëm lii loolu sax boo xoolee baatu laa ilaha illa allah loolu ma fa daje da ngaa njëkk a weddi weddi yi ñuy jaam faaw day war nga weddi leen gëm ne duñu yàlla gëm ne yéeyi woñu jaam gëm ne dañoo sosu gëm ne am nañ fuñ tàmbalee wedd kon yooyu yépp danga koy weddi ci ñoom waaye saxal nag allah daana illallah moo tax laa ilaha illallah amul kenn kuy jaam ci dëgg illallah lu may yàlla kon pas-pas bi loolu moo tax muy làmb diggante saxal ak saxal li nga war a saxal weddi li nga war weddi li nga war a weddi mu ne loolu nag xam ko dafa war ci jullit ñëpp loolu wuute amuñu borom xam ñëpp dëppoo ci ne xam-xamu aqaayid ñépp a ko war a xam ku bëggoon ab jullit faaw da nga koy xam nit ki wax dëgg yàlla mënut mën na ab jullit la te boo ko ndax yàlla am na mu ne a ah, xaar ma xalaat ba xam ndax yàlla am na mu ne a ah, am na ñu ko wax de am na ñu ko wedde léegi nag faw ma xool tepp de baat ba xam ah loolu kooku amu kooku amagul pas-pas faaw yàlla am na moom wërta wërta am maanaam taxaw waaw ndax yàlla moo bind jaam yi wërta am taxaw ndax yàlla. Euh, du fi jógee warut am taxaw ak yeneen yu ni demee naka noonu ba tey ci ponk yi topp bindu solasum yàlla ni ndax alquran yàlla yàllaa ko wàcce wax yàlla la na alquran euh, du lu sosu melo borom subhanahu wa taala am taxaw waaw rek doon tontu ba loolu borom xam yëpp dañ cee dëppoo mu ne bilaa dalil xam-xam ko xam amut maanaam amoo ci benn preuve maanaam amoo ci ay tegtal yoo xam ci nga tegtaloo ba àgg ci pas-pas bii nga pas man daam ñoo xam daal ñoo dañuy jut rek léegi fekk fi ñu ñi ñu doon ay jullit waaye nag ñoom loolu ñu gëm pas-pas yooyu ñu gëm boo booleen laajoon yow yow lii nga gëm moom lan ma gis sa preuve lan ma la wax ne ah, yamal qiyaam lu am la lan ma la wax ne àjjana lu am la du la wax benn alquran la nekkat dama jigéen ci sama bopp ba sama xel jox ma loolu daal xel la nangu nanguwut na daal eh, nit ñi dañuy nekk ci àdduna rek daal eh, dund ku ñii tooñ ñi ñii tooñ tooñ ñii am am ñii ñàkk-ñàkk ñi leen muñ muñ muñ muñuñ woon ba nepp maanaam bu ñu faatu yëf yom yem foofu man daal sama xel daal damaa jox na daal faaw daal am beneen bis boo xam ne faaw daal ci li ñuy lijjanti mbir yi mu leer moom yooyu yëpp fekku ca waaye nag am na moom pasos bu dal loo ko ci laaj mu ton la bis bi ndax am na mu ne waaw ndax yi ñu yàlla yón lañ ñu ne waaw ndax ibrahim yónente bu yàlla la mu ne waaw dog def ab dogalam mu ne la yàlla kon loo ko laaj mu tontal waaye nag boo ko laaj lan sa tegtal moom du la ko wax kooku moom dafa war boo tax dañ caa dañ caa dëppoo loolu mooy elmi laqaan yoo xam ne ci tegtal nga sukkandiku loolu ci la borom xam wuute bu métt bu yàgg ndax la loolu war la wala warut wala wa fi dalil day mel dagg xilaaf na ay wa fi dalil xilaafun lu war la ñëw daal ñu jàpp ay jullit ci na ay jullit di jëflante ñoom nii jëflante ay jullit te ñooy xam ngeen ñoom laytaayal taayal wala profil wala indi ay firnde ci seen pas-pas yooyu xam ci amat naa si waaye boo leen laajoona luy sa tegtal ci yii nga gëm nii du la ko wax moo tax nañu bari ñu ne ci borom xam moom xam ko ci teg dama warul moom am ñeneen ñu ne déedéet xam ko ci mënta ñàkk yow sax su ko da nga war da nga ko war tegtal ci ay tegtal dañ ko war teg ciy lay ba nga xam ne buñ telu ñëpp wedd nañ yàlla yow doo wedd yàlla bu ñettal woon ñëpp wedd nañu war nañ ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow doo ko woon ginnaaw xam ne mu'tazila yi ñu wax am na ñeneen ko wax ci borom xam ci borom xam bal sax askan lañ ko imaam Abul Hasan al Ash'ari Abul Hasan al Ash'ari Ali ibn Ismaïl ibn Abi Bishr al Ash'ari day ñëw ci moom insha allah ci di ñëw moom am nañu ko askan la wax jooju noonu waaye ku ñu tuddee Abul Qasim al Qushayri yi nee na loolu iftiraa la duur wuñ ko duura la rek waaye loolu wér na moom moo ko wax waalaay ko am na ñu wax loolu ci ne daal xam xam pas-pas moom faawu de am tegtal loolu ma tax ñoom jàpp ne imaanul muqallid laa yasix maanaam ki nga xam ne dafa roy keneen ci gëm gim gëm waaye moom du ceegee moom ci xel bopp ak xam-xam bopp lu sukkandiku ba gëm ñu jàpp ne ko kooku moom ak gëmam wérut bu ñu xoolaa sax yaakaar naa ci dars bi jàll loolu lañu ko wax euh, ilmul mantiq bi ñu doon junju ñu baree bari bu ñu jàpp ne dafa war ñu jàng ko foofu dañ koy sukkandiku ku ci ñaari muqaddima muqaddima bi mooy ne imaanul muqallid laa yasix gëm-gëmu ki nga xam ne dafa roy nit ñi ci pas waaye amu ci preuve bu mu sukkandiku ko gëmu wérut ñu sukkandu ci benn benn muqaddam ba tey ci mooy ne yàlla borom subhaanahu wa taala kenn mënu koo xam ndax xam melo lu may xam-xam mantiq ndax moo leen mën a jox adilla aqliya yoo mën a tarkiib ba àgg ci natiija bi nga soxla nii boo gisee ñu bari kon ne wax na xam-xam mantiq jàng ko mënta ñàkk mooy doon waaye ñaari mu ajimaan munaqasha ndax bu dee imaan muqaddal laa yasex kooku moom wax la joo xam ne yi gis mu gën a dëgër wax dëgg yàlla waaye li gën a wér mooy ne muqallit wala kii roy nit ñi ba am pas-pas bu baax même kooku pas-pasam nii du ceegaane ci man kes kese nga ko mën a amee waaye man nga am say adil àqale ya yoo mën a ràbb jaare ca ba àgg ci njobaxtal pas-pas yi te xam xam-xam mantiq dama la bari na ci borom xam ñoo xam ne xam amuñu xam-xam mantiq waaye bu ñu waxee wax dëgg yàlla xel mu nàcc xel mu ñor lañ yoroon kon euh, wax jooju wax la joo xam ne ñaari muqaddam yi ko tarkiib ñaari yëpp daa aajowaat nafaraat mu mel ne waxtu wi jot na foofu kon mën nañu taxloo insha allah ba beneen kii hada wa axir daawaan an alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain daa mel ne trente minutes ëpp na de jërëjëf sëñ ma Samba Karo ñu ngi fan ak ci téere bu am ñu lay sant bu baax di la gërëm xam naa dañuy ñëw ci laaj rek incha allah. kii day laaj ndax ku du jullit bu rendee dina dagan ab jullit jëfandikoo ko. mën naa ne ko xam ne amul diine doon ko am diine comme bu fekkee ne ab chrétien la wala ab siif la. yahuud yi wala nasaraan yi kooku am diine la mën naa ne ko xam ne amul diine kii jaamu sawaraak jaamu ay xarak ay jantak kooku amul diine bu fekkee ne ki am diine la moom bu rendee lislaam dagana na ak rendeem ak doon nam rendee mooy nam na ku diineem gisee noonu la rendee booba lislaam maye na mu jëf kooku bu rendee lislaam dëgg na lu ko moo tax bu dee ku njëkk ki yàlla nee na wa taamu ladina uutul kitaab xillul lakum wa taamukum xillul lahum ñi nga xam ne kat dañ leen indil téere bi te mooy kitaab yi ni alkit ñi ñu tudd alkitaabiyun siif yeeg nasaraan yeeg yooyu seen ñam te seen ren seen zabaih noonu taamu ko mooy seen zabaih noonu nekk boroom bu fekkee ne ki nga xam nag moom Euh, amul diine kooku moom dafa xaraam jullit bi di jëfandikoo lam rend wala taakulu mimma lam yuzkar ismu mimma lam yuzkar ismu la ala wa inna la fisq kii ren na nga xam du tudd yàlla mooy ki amul diine kon loolu mooy ton bi insha allah ki am diine daal bu rendee dagana jullit bi lekk ko kooku du jullit ab chrétien la wala la ki amul diine nag bu rendee moom moo ñàkk rendam ñoo yam moo ngi mid yem jërëjëf Samba ci todd bu am solo boobu kii laaj mu ne kuy julli ñeenti rakka ndax ñeenti rakka yëpp da ca war a tari faati ak saar wala ci ñaari njëkkee rek la ko war a tari ah déedéet julli ñeenti rakka ñaar rakka yu rek la nga war a jàng faati ak saar wala mooy sunna sax laa ndax faati mooy farata saar mooy sunna waaye ba tey bu neexoon sax doo jàng aw waaye ay aaya nga ciy teg ay waaye donte liy sunna si man nag mooy nga jàng aw saar ginnaaw faatiha amaa ñaar yu mujj yi moom ci julli ñeenti rakka ba mujj moom fa waaye saar doo ko fa jàng waaye boo ko fa jàngoon nag teewul du yàqu julli gi du yàqu julli gi pare sujjóot tamit nag dañ koy jéggale ni ki suñ tubaa dina wax ci jawar nafiis ka ka zaidin fi rakaatayni suura anil axiratayni fi mujj ci waaw kenn sàkkuwutoon ci nga jàng ay saar faata rek doy na sëkk wallahu alam jërëjëf sëñ ma Samba tontu bu am solo boobu mbokk mi day mu ne ku jënd kër ngir. loolu da buntu commerce maanaam kër moom kër goo moom nii asaka waru wante nag bu fekk da koo jënd ngir jaayaat kooku bagage booy commerce la bagage booy commerce nag asaka daf cey war ba at. benn la ci bagage yooyu bu dee moom kese nga yor tamit nag bis boo ko jaayee ba noppi nga asakaal ko bu fekkee ne yeneen sart yi dañu ne ci mooy am na attaque euh, wala ci wallaahu jëf suñu am ci tontu bu am solo boobu mbokk mi day mu ne kuy julli fi mu war a wax subhanallah ba bi am di mu jaar ba wax fa subhaana rabbil aziim ndax julli ga day waaw déedéet na day day rukkoo dañuy sopp ci moom mu sàbbal yàlla subhaanahu wa taala sàbbal bu mu sàbbale baax na moo xam ne subhaana moo xam subhaana rabbil aala la moo xam subhaana rabbil aziim la moo xam subboon ku malaaykat war wax la baax na dara dara wàññiwu ci bu fekkee ne da ngay euh, sujjoon nag nga wax subhaana rabbil aala allahumma ighfir li même boo juumaan la lañ bëgg nga wax ko ca sujjóot sujjóot ba nga wax ko ca euh, rukk lañ bëgg nga ba dara wallahu alam jërëjëf suñ ma sàmba ci tontu bu am solo boobu kii day laaj mu ne mburum koor ndax mën nañ koo génne ci fukki fan yu mujj yi déedéet mburum koor euh, fiñ ko war a génne mooy fa mu ware fañ lay fan lay ware borom xam am na ñaari wax mooy bu fekkee na jant bi sona ci bis bi mujj ci weeru koor am ñu ne foofu la ware am ñu ne fa muy ware mooy bisu kori bi bu demee ba fajar xar foofu la ware ñaari wax foofu la am kon fa fa nga ko wone wala fañ la ko laaja mooy ci ñaari waxtu yooyu ci wuuteeg borom yi may nañ la nga génne ko ñaari fan ci lu jiitu weeru koor loolu mooy wax imam malik ci mu dawwana ci ne muurum koor mën naa jiitu koor gi ci ñaari fan dañ koy jéggale am nañu sax ba ñetti fan mën nañ koo maye loolu ba day wax na ci ngirum Malik kon ñaari fan wala ñetti fan jiitu kori man nga caa génne murum koor amaa nag fukki fan lu jiitu kori moom kooku moom mënu ca génne murum koor ndax day mel rek nga julli woon ci waxtu ñëwul julli ci waxtu ñëw mënta nekk koor ci waxtu ñëw mënta nekk ndax na ba tey murum koor ci waxtu ñëw ba tey mënta nekk wallaahu jërëjëf suñ ma Samba ci tontu bu am solo boobu kii dafa nekk Europe mu ne ndax mën naa ànd ak waa Touba Laylatul Qadr waaye dafa gis ne moom ñoom ñoo njëkk woor waa waa waa muy laaj ne ndax day yella bu ñu ànd ak waa Touba la du xadar pare day yellaat ñu defaat si la du xadar waaw mooy faaw ñoo xam ne que bis sàng mooy bis la du xadar dëgg la rek ñu baax ñu yàgg moom ku ci ne am bis booy natt nga xam ne ca ngay dàkkalee du xadar waaye ñii di ko dàkk ci ay fan yu wuute ñii di ko dàkk ci ñaar fukk juróom-ñaar rek ñii di ko ñaar fukk ñaar fukki juróom wala wala wala wala euh, yu ni demee bu fekkee léegi xadamaa nañ ci bi maanaa bi yàllay wax la lay jublu ba léegi xada comme événement nag kooku moom événement événement li comme neex nga def sa événement saa yu la neexee waaye li am solo mooy moom yàlla kon ban bis la koy dàkk rek dàq gi nag kenn xamul ba tey ban bis lay tombeel ndax dañ koo lëm nëbbu ko su ko defee nag mën naa nekk nag bu fekkee ne ñoom dañuy jiite benn fan ci misaal muy alxames tombeeg la def ne boobu mooy ca yàlla yàlla waaye ñu ñu ñu jiite benn fan bi ñun layut xat doon ajjuma ci ñun loolu mën naa nekk nga xam ne maanaam layut xadr ca béréb sàngam alxames sàngam la woon saatul ijaaba waxtu wi ñuy nangu ñaan ci ajju juma bu dee masalan ca Arabie Saoudite nga nekk wala ca Norvège nga nekk naa nekk masalan quinze nag dix-neuf heures ci heure Greenwich bi loolu mën naa nekk ñi nga xam rek maanaam ñee seen timis mooy jiit sin timis ba de seen leet bari mën naa jiit si leet xadar ñun bu fekkee loolu mooy laaj bi loolu mën naa nekk yu ba nangu gi wax ne ka subhanahu wa taala ci asamaan suuf si di nangu ñaan ku may ñaan ma may ko ku may jégal ma jégal ko euh, loolu ba tey euh, heure yi mën naa bañ doon heure ba muy doon fee ak bi muy doon fii duñ bokk fee mën naa doon trop jërëjëf bu xam naa dafa déggul kii mu ne ndax ki nga xam ne dafa dañuy gis léeg-léeg ci poti conserve yi ñu bind ci alal maanaam dafa araam wala araamul waaye xamoo ko rey ndax léegi ndax loolu wóor naa léegi. waa bind bind ci fekkee fekkee ne ka ko day seqa day ndeer koo xam ne ay waxam doy la boobaa mën nañ caa sukk waaye yooyu man damaa jàpp li ci gënoon moo ñu amoon benn jeexal benn bala taxewoon ñooy xam ba xam béréb yu jóge béréb yàpp yu jóge fii wala pël yu jóge fii ñoom béréb ba mu jóge ñoom nu ñuy nu ñuy def ñoom ndax ñoom ñuy rendi lañ ndax ñoom bu ñu mënee xalaal ñoom daa fekk maanaam normes yi sharia teg ñu respect wala état ma jafe moom individu li mën wax lu leer xam ne xamut ña liggéey xamut ba xam ñoom façon lañ yoo xam ne euh, lu ñu wax dañ koy respecté wala déet loolu moom état jàpp naa moo waroon yor yoo xam ne mooy taxaw yooyu nga xam ne ñoom ñoom ñooy xam ndax lu araama la laal la wallahu alam jërëjëf bu am solo boobu xam naa yeneen koy jiima jaar la ci kii bu ko defee ko déglu benn benn waa moom laaj bi mooy nee na moom dafa deman benn benn bi daa dem bay sangu bi mu sumee tubay njiglaayam mu gis ab taas taas bu weex moom muy sikk saaka sobe la am du sobe nee na maanaam bu dee sobe lan mooy àtte bi sa daa fekkal mu wóor waaw ki nga xam ne dafa gis ci tubayam ab tooy tooy walla taas taas xamul ndax sobe la wala du sobe ca daa fekk mu woor maanaam kon bu mu dégg wax mooy mën naa doon am ngaanuwaay mën naa maniyu bu dee maniyu mooy li nga xam sang fara daf caa war bu dee mosi mooy li nga xam ne raxas ko ak raxas cër ba moo ca war bu dee am saw mooy la war mooy raxas ko rek moo ko ci war bu dee saw la bu dee masi génn nañ comme yëgku kañ bu dee mën yu mi tamit mën yu du yàq koor ndax mën mi yàq mooy moo xam ne bànneex moo ko génne bànneex moo ko génne ama mën yoo xam mën yu moo daa jékki-jékki génn benn bànneex kooku du yàq du waral timit sangu farat ni ñu ko jàngoon ci téere yi mën yi may waral sangu farat mooy moo xam daay génn ci ba ànd ak bànneex ba mbaaxoo àndal ama mën yi mu génn ci lu dul bànneex wala mu génn ànd ak bànneex boo xam ne bu mbaax ba mbaaxtu àndal la sedd ko génn wala daa wakkut mu neex génn yooyu ba tey du waral sangu farata léegi kon na muy def mooy na ko raxas moom war na ci moom mu raxas loola kooram moom baax na ndax ma ne moom même bu génnoon ci bëccëg weeru koor du yàq sa koor rawatina mës yu rawatina muy am saw ci ñetti jamtal yooyu rek moo mën a am wala wëj ji bokk te wëj lu muy génn kon kooram moom yàquwut léegi war na ci mu raxas ko ndax bu dee saw sobe la ittifaqan ijmaan borom xam yi dëppoo nañ ci bu dee masi la sobe la ijmaan borom xam yi dëppoo nañ ci bu dee mani ci ngir malik ba tey sobe la lañ ko jàppe kon faw mu raxas béréb boobu noonu léegi nag ay julleem bu fekkee ne jot julleeg moom ko soog na ba noppi day tegtal jamtal na kon julliwaal nañ sobe ndax amaana kon ginnaaw bu mu julee bu mu ah, ginnaaw bu mu julee la soo génn ci moom li mu njëkk mu julee génnoon ci moom kon ginnaaw ba mu ko raxasee ba noppi bu fekkee ne waxtu julli ba génn na ba tey lan moo tax mooy ku julliwaale sobe ci xamoo ko ba waxtu ba génn warut ngay baamuwaat dara waru la ci boo fekkee ne waxtu ba mi ngi des ba léegi sopp nañ ci yow nga baamuwaat loolu lañ jàngoon ci Ibn Aas ci tënk mu nat ban ñooy daani bi waxtin kal xata an qiblatin ba bay di jeex wallahu taala alam nee na moom it baneen baneen bi daa dem bay jàpp bi mu bay jàpp moom it bi tuur ndox tisliya mu tooy tooy ren ni sax eh, tuur ndox la nee na ko laalee si loxoom mu mu mu ritax moo xam ni masiwu la nee na moom may laaj lan moo si àtte bi ba xam bis boobu da koy fay am du ko fay nee na daal moom yooyu génn surtout yëpp génne yëpp ba si daal xam ne lii si moom la génne waaw nee na moom muy laaj lan mooy àtte bi waaw maa ngi jégalu bu baax. waaw kooku daanaka duggoon na ci question ba jàlloon yaakaar na xaw na koo tontu kooku moom li mu wax li mu mooy mesure lay doon moom daal jugewu ci ne la wala dara te mesure moom li ko wutale ak man ñi borom xam ne dañuy wax ne mesure buy génn nag borom du ko yëg day jekk day gis mu tooy bu dee mën yi nag moom day yëg ndax da ko yëg ndax day jañu bu fekkee nag masi boobu nag la ko génnee du benn bànneex masi boobu yàqut koor moom masi boobu daa génn ci lu benn bànneex yàqut koor bu fekkee ne am na am na lu mu daan def nag ba mu génn ndax gaañ ci mu léeg-léeg dëgg su am na lu comme mi ngi doon foo wala yu ni demee ba loola génn kooku wax ji gën a siiw ci ngirum Maalik mooy ne kooram da yàqu messi moom day génn ci bànneex ci ngir maali day yàqu koor donte nag ngir maali la moo ci gën a siiw ci ci biir ngir maali am na am na yeneen wax yu ne du yàqu koor bu dee bànneex ba ko andi lu néew la loolu mooy dëppoo ba da ngirum imam Shafii ñoom nga xam dañu du yàqu koor wa ibnu xabibin in athar wa nazar yasiran alqaahu wifaaqan lin nafar loolu dañ jàng insha allah ci kafaaf bii ne bu ci kanamee bu ñu àggee ci buntu sawm wallahu aalam salaamaaleykum wa rahmatullah ñuy ziar ñëpp ak ndokkeel ci weer wi kii dafa doon laaj euh, dañuy faral di dajale ñoom zakatul fitre léegi nag mu doon laaj buñ ko dajalee ba noppi est-ce que li gën mooy yaatal ko ci jox ko ñu bari ñoo xam ne itteewoo nañu ko maanaam bu dajale woon téeméeri junni est-ce que mën nañoo jël téeméeri nit ku nekk ñu jox la junni pour nga mën a feetu wala est-ce que juróomi nit ñu jox la ñaar fukki junni nga am ci lu séddale nga ko mën a defee mu gën na gërëm jërëjëf waaw jërëjëf jëf zakaatul fitr yi bokkatul lu mel ne kafaaraat yi bu doon ci kafaara juróom juróom benn fukki la ñu jox ko ab miskin nga na ne foofu mën a jël ñaari mudu jox ko benn miskin bu dee bu dee ci asakay fitre nag asakay murum koor nag jàpp benn mudu mudu xam naa daal bu dem ci mazhab yi nga xam ne ñu jàpp ne kon mën nañ ko génne xaalis ci loolu lool lu jël mën naa ne bu neex nga fam ñaar fukki ñaar fukki jox ko benn miskin wala faqir bu leen ba ñaar fukki junne nga séddale ko ci lan bu dee moom yëpp ay baax boo ci def baax ma gën mag ça dépend rek ci seen situation bu fekkee ñaar fukki yi ci misaal kenn ci amut amut amut amut lu mu añee ci bisu kore gi waaw dañ leen nga séddale ko ci ñoom moo gën ñaar fukki ñaar fukki nii ku ci la nga jox ab junni ndax junni mën na caa am lu mu lekk ci bisu kore gi kon ndax lan moo gën yaay xool situation yee lam laaj bu dee comme ñëpp ñëpp dañ cee loru nga séddale ko ñëpp moo gën bu dee ñëpp loru wuñ ci nag yaay xool ba xam ndax boobaa kenn koo ko jox mu jariñu moo gën wala déet waaye laa ko nañ xam ne asaka muur ko ñëwut ngir régler problème yi ñu ñàkk déedéet asaka muur ko dafa ñu ngir régler problème bis bi kese loolu moo ko tax a jóg loolu moo ko tax a jóg kon li am solo mooy nanga fexe ba faqiir yi nga koy jox ñoom bis booba nañ ci am lu leen doy loolu nag day wuute ba ci faqiir yi da ngay gis koo xam ne ab junni doy na ko ci kor gi am na koo xam ne fukki junni doyu ko ndax njabootam dañoo bari ça dépend ci nit ñi niñ tëddee wallahu aalam salaamaaleykum asalaamaaleykum ku baax ki ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di ji di rafetlu indi koor yi ñu ñaari laaj Euh, day am ñoo xamante ni ci wàllu pàcc euh, dañuy demee fàtte nag tur bi nuñ koy waxee waaye mu ngi mel ni ndox mi génn ci ku góor gi maanaam ci ci misaal soxna si mën na dem médecin ko kat euh, faaw ku góor ki ndoxam ñu jël ko étudier ko pour xam ndax dafa amee tawat wala amul tawat te maanaam ni ñuy def ba mu génn it euh, du lu dal xel ma doon laaj loolu lu wax at muy euh, dëj hmm. hmm. ñoo xamante ni dañuy tëw am doom waaye bu ñu defee loolu day am ci ñoo xamante ni surtout wàllu ñu ne tugal ak yooyu bari na ci dañuy jël ci ku góor ki ndoxam jël ci ku jigéen ki ndoxam am fuñ ko dugal boole ko ñu ci ku jigi loolu laa bëgg a leerlu ci lu ci lislaam wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf bu dee dañuy jël ndoxum ku góor gi ak ku jigéen ki am fuñ ko def lañu tudde at at moom lañu tudde at talqiix as sinaa'i wala li ñu tudde tiflul anabib atfaalul anabib xam-xam dafay évoluer dem ba àgg foofu léegi nga xam dañuy mën a jël maniyu góor gi ak ñu ngi tudde booy da bu jigéen gi am fu ñu leen def mu boole leen mu évoluer yi di màgg ba ci yàgg ñu jël jël jël ko def ko ci meenum jigéen gi léeg-léeg su ko defee mu ko ne mu ko ne ab ëmbam mel na tàmbalam ëmb day mel na ko ci weeree la doonoon ca weeree lañ koy def ñoom loolu lu dem baji si téere yu bees rek lañ ciy mën a foofu noonu na daa bokk yu ñu tudde ay nawazil ay mustajadaat ñi ma ci gis nag ñi ciy wax boroom xam-xam ñaari xeet lañ am nañ ñoo xam ne ñoom dañ ciy dàq seen seen responsabilité bu ñu waxee daal ñu ne daal loolu mënuñ cee wax mënuñ cee wax am ci ñoom ñoo xam ne duñu wax ji mënuñ ko wax waaye dañ naan loolu dañ meen jéem a tadaxul jéem a dugg ci bi yàlla la ci loolu sa yoon da ca néewul mu mel ne kon seen wax da nga ciy déggee kon ñoom mooy dañoo araamal jëf ju mel ju mel noonu am na ñeneen ñoo xam ne nag ñoom dañ naan dagan na waaye ci condition ci sart gis naa benn euh, fatwa boo xam ne ko wet mbooloo yooyu mbooloo la moo xam ne jàngat mbooloo la nga xam ne ku ci na ñañ ci soxla ñëpp éléments yëpp dañuy ñëw ñu dégg fiq dañuy ñëw ñu dégg médecine ñëw wàllu biologie ñëpp ñëw ñu jàngat lañuy jàngat teg ñoom lañ génn ñoom dañ na daggan na waaye ciy sart mooy nañ ko soxla nañ ko nañ ci am aajo noonu ba tey li ñuy jël ci góor gi ñu ko jëlee ak jigéen gi ñu ko jël dañuy sëy ñoom ñaar bañ koy def ci na fekk na bañ a fekk kenn ci ñoom ñaar faatu ñoom ñëpp dund jël ci di sëy gi jël ci ñoom dañuy jël ci ñoom def ko ci weer yooyu mu continuer loolu mën naa nekk waaye ci sart yi ñu wax ni nañ nañ doon ñaar ñu dencante jamono bañ koy def na fekk ñoom ñoom ñëpp ñuy dund bu fekkoon ne dañu jëloon ci góor gi jël ci jigéen gi far góor ga daal di faatu jëf ji nga xam ba faatu kenn léegi mu ne woon léegi borom kër góor gi lañ lii ci borom kër lañ jël ak ci soxna lañ ko jël ndax ba mu faatoo rek maanaam buumu sëy ga dagg na moom kon mën a continuer lii nga doon def nii bu fekkee tàmbali ko woon lañ wax nag bu fekkoon tamit kër kum sëyiñ ba dem nga bëgg leen def loolu yaram bu doon tamit kii moom soxna mu am problème waaye moom góor gi amul problème moom dem jël yi nga jox ngi moom amul problème waaye góor gi mu am problème ñu jël fi yëfi beneen góor mel ni beneen góor boole ko boole da bu jigéen gi ba tey day araam ba tey boo jëloon ba tey bu góor fële bu dem ba fële ab jàmbur la jël bu kumba fële kumba ab jàmbur la ñëw ba koo def ci meenu euh, soxaat soxaat mi nga xam ne moom soxna kii la soxna paate la ci ñoom ñaar mënuñu am doom nga bëgg a jël yooyu def eenuk soxaat bi ba tey day araam kon ñoom dañ ne daal fenn kese lay mën a nekke mooy bu dee ñaari njël ñu ñëpp ay ñaar way dencante lañ ci ay jamono bañ koy def tamit doon jamono boo xam ne ñi ngi sëy ñoom ñaar kenn faatuwu ci ñoom ñaar tamit nag bu kenn faatu wala fase ba fase amoon te du dagan wante tamit ci sart mën na fekk condition yi condition yoo xam ne ñu leer na jaxasu dafa am ñu koy def seen matukaay ak seen ak kóolute àgg na foo xam ne jaxase ci ndox yooyu munta am sart yëpp dañ koy sartal mu soog a mën a dagan bu dee nag ki nga xam ne dafa am a jafe moom yoom la tudd yi nga xam daa mën a faju bañ fajal ko euh, li tax ma nii mënta am doom loolu mën naa nekk léegi nag li mu wax nag ne moom dellut xel dellut xel nga laa xamul mooy lan moom dellut xel moom mënu maa xam lan la jublu ci dellut xel moom allahu alam asalaamaaleykum mbokk mi waaw man dama doon laaj nii dama dégg ne dama dégg ne booy maanaam booy sekk ak sa soxna ba dégg ñu ne salaatu maanaam foofu noonu da war a bàyyi te dem sangu set daal di mën sa koor mën a mat waaw mu doon nag ne comme ba ma doon man ma yëg ne salaatu xayr mun a nëw waaye diggante bi may sangoo foofu noonu maanaam ma yëg ne sama maniwu mu ngi siy tuuru ndax diggante boobu salaat ba pare maanaam si si lu lu jiitu lu maanaam ginnaaw salaatu gi laa gis ne maniwu gaa ngi tuuru ndax loolu yàq na koor wala yàqul koor ndax damay kon ne woor wala damay bàyyi waaw waaw sëy moom xam nañu daggan na ci guddi koor waaye bu xas bu fajar xasa bu jot ma dafa araam loolu yaakaar na ñëpp xam nañ ko moom léegi nag salaatu gi day am ñoo xam ne bu waxtu duggee rek ñu nodd salaatu nga xam ne kooku moom nodd gi ci ngay xam ne waxtu yu dugg na am ñoo xam ne waxtu yu day dugg tuuti ñu soog a salaat comme bu dee fii ci Touba ñaare moom jàpp jot na la ñuy wax dañu bàyyi ab ay minutes yu néew ba biir ne waxtu yu dugg na bu biir ñu soog a nodd kon foofu boo xaaroon nodd moom nga soog a bàyyi lekk wala naan wala sëy na nga xam ne moom ci bëcc bi nga sëy ci bëcc nga lekk ci bëcc nga naan am na ñoo xam ne xëy na dañ ko toll ba nga xam ne moom waxtu wi net rek foofu la ñuy nodde bu dee loolu la nga xam ne moom waxtu fi na fi waxtu duggee net foofu la fekkoon yow ngay sëy nga dégg baat bi rek walla nga dégg sonn gi rek daal koy dagg foofa nga xam ne yow boobu sëyeekoon ci bëcc ci fajar fa sëyee ci bëccëg gi loolu mën naa nekk boobaa du yàqu sa koor ak donte ginnaaw ba nga bàyyee ba nga bàyyee mën yi soog naa ñëw génn foofu du yàqu sa koor moo tax foofu ba bañu donga daal dañ fi daa dañ fi daa tex aw cax na mën yi moo xam ci bëccëg wéeru koor la génn te daa génn ci bànneex ba mu baaxoo àndal bana bi yàqut koor mooy mën yi ki nga xam ne da doon sëy ci guddi koor bi mu sëyee ba noppi ba dagg arrêté fajar jot ma nii soog génn kon ma nii moom kon bànneex moo ko génne waaye nag bànneex ba ko génne bànneex moom jiitu na fajar ga kon ma nii ma ñëw ginnaaw fajar kooku du yàq kooram kon moo tax mën naa sangu bu dee mën naa sangu continuer kooram wallahu aalam benn bo benn boobu ma déglu ayca kon mu ñëw. yaakaar naa diglu na ko. waaw d'accord waaw. déet waaye xamatuma nu mu doon. waaw laaj boobu ñëw nga xam ne soxna sa day wax ne mook borom kër dañu am ay ay jafe-jafe ñoom ñaar léegi nag borom kër bàyyi ko jox dépasse diirum ñaari at doom yi ñu am tamit jox ko dépasse mu borom kër gi mu sonn lool ba tax mu jëloon lu toll ne lañ ko canale woon jox ko jigéenu borom kër ga ngir bëgg caa summi konte foofu day yu bari am na fi bi ci njëkk mooy boroom kër moom moo war a dundal soxnaam li ñu am ay jafe-jafe te moo war dundal soxnaam li feek soxna si lànkutu topp ndigalam li ñu li alxuraan tudde an nusuuz nusuuz taxaafu wala wala wallaati taxaafu nusuuzahunna foofu moom fuqaa yaxal nañ ne jigéen bu fekkee ne dafa nusuuz te mooy dafa génn topp génn topp boobaa borom kër war borom kër waratu koo dundal bu fekkee ne loolu amu ci nag borom kër mi ngi tooñ ngir ñàkkum ñàkk dundal doom ja tamit borom kër gi moo ko waru dundal léegi nag euh, summi konte mën naa nekk waaye summi konte moom ci ñaari taraf la am am ko koy sàkk am ko koy nangu moom bu sàkkoo summi am na sañ-sañ ci sàkk ko wante nag jigéen nga mu ko jox munta wëyal munta walide summiku googu ndax jigéen takku ko woon góor a ko takkoon góor ga ko takk kooku moo ko mën a faseel boppam moo mën a nangu tamit summikonte gi waaye kenn munta nangu summikonte kon am na sañ-sañ ci summikonte waaye bala wëy nag ñu jàpp ne sëy ba tas na faawu góor ga moo koy nangu moo koy wëyal waaye nag moom man li ma ko doon digal mooy mu dem ca euh, kilifa kilifa ga ci boppam góor gi am na kilifa na dem ca kilifa ga ci boppam ñu xool sëy bi ñoom nuñ koy defare wala nuñ koy tase ndax ab sëy moom jigéen bu ci xase génn bu ci xase bi dugg du caagaan saa yi ci bëggee génn génn génn ko ca dëgg nag bu su demee ci kilifa nag saxal lor gi loru moom moom jigéen gi ak ni ko borom kër gi lore bu boobaa lislaam day wax ne yow kilifa gi am nga sañ-sañu tas sëy booba noonu kon da loolu daana day masala maanaam day mbir moo xam ne la ci gën a ëpp njariñ mooy qada maanaam kuy àtte àtte bu tribunal islam amoon da at da ngay da ngay dem ci tribunal boo saxalee lor gi ñu xam ne que li nga wax lu wér la tribunal mooy tas sëy ba moo xam góor ga neex nag wala neex ko waaye comme tribunal islam islam amatul nag amatul fii nag ci lu ma xam am nga sañ dem te kilifa ga ndax kilifa ga moom mooy tax taxawaayu tribunalul islam bu doon fii nii ci misaal Touba dana dañ naan na nga dem fii sëñ Aafi Buso masalan wala sëñ Baari wala sëñ Imam Buso wala wala sëñ Imam Buso wala nga dem ci koñ sàngam kilifa kilifa sàngam nga nekk ci koñ sàngam nga xam ne moo fa yilif kooku mën naa taxawaay taxawaay taxawaay tribunal bu bu boobaa moom day former benn commission boo xam ne ñooy liggéey ci loolu ñu xam dëgg na sëy ba la cay jafe-jafe ba bu dee lañ mën a réparer ñu réparer ko bu fekkee na daa sax ne jigéen dafa loru te góor gi moo ko tooñ ca jaakaar yaakaar nañu maanaam moom buñ nee timit ci lor lor gi day ne rek booba sañ am nañ sañ-sañ ci dakkal sëy ba tas sëy ba kon loolu mooy li nga xam ne moom nañ koy conseil waaye nag summi moom am na sañ-sañ daal ci sàkk ko waaye nag ku ko mën a wéyal moom mooy borom kër ga waaye jigéen gam ko jox jigéenu borom kër googu mënta wéyal summi konte googu noonu wallahu taala alam hada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain lépp lu ci jub ci yàlla la subhanahu wa yàlla na ko def tiyaaba ci seen balance yowmal qiyaam lépp loo xam ne da cee juum nag ci matal doomu aadama ak seen rëcc rëcc rek yàlla na ko yàlla jéggal ca ba ñuy ba ñuy ci topp dara ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar di leen dëkkal ci ko di leen ñaanal tawfiq di sàkku ñu ñaanal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikhul comme ci laaj yu am solo yooyu nga xam ne indi woon ngeen ko muy laaj yu am solo kon yéen waa bitim réew ñu ngi leen sant baax leen gërëm ci ngeen di bàyyi xel waxtaan fii ci daara ji ci laaj yu am solo yooyu ngeen laaj man man ngeen a continuer. ah. ah ajju kon bismillah. sëñ bi na ngeen defaay ñu ngi bu baax a baax man dama am benn benn question bu ma doon laajte si affaire natt asaka est-ce que asaka boo ko nattee ah nu som bi toll rek mun nga ko tamit séddale jox ko benn nit nga xam ni dina si mën a daf dara lu am solo wala asaka da nga koo war a séddale ah nit ay ay ay mbooloo wala tam est-ce mbooloo mi ngi ko war a séddale tamit est-ce que am nañu lim bu dee lu jëm si asaka. ak tam ban jamono moo gën a rafet si génnee asaka tamit ak jërëjëf ñu ngi ziar bu baax a baax. waaw jërëjëf. asaka euh, liñ am liñ bëggoon bu amoon day am ñu ko yor nga xam ne ñooy dajale asaka yi booba ñoom ñoo koy séddalewaat tamit nag booba ñoom ñooy xool ñi ko yeeyoo ñu jox leen ko ki nga xam ne daa yeeyoo ñu jox ko tuuti. ñu jox ko tuuti kii yeeyoo ñu jox ko lu bari ndax mu liggéey bu liggéey mu génne asaka moom ñu jox ko lu ñu jox ko bari loolu bu ñu amoon mbooloo moo xam ne mooy saytu loolu euh, coon yi yëpp duñ ci fekk bu loolu amul ku ci nag yaay góorgóorlu sa góorgóorlu bokk góor góorgóorlu bopp bu fekkee ci doy gi moom yow bu la neexee nga séddale ko ku ci ne am ci dara boo sa asaka baax na waaye boo lépp tamit boo ko joxee kenn tamit sa asaka baax na waaye ci sart nag la ngay joxe kenn na bañ a ëpp nisaab maanaam milliardaires yi la lañuy génnee ay millions la ñuy génnee ñooñu mënuñu fopp masalan fukki millions jox ko benn faqir ndax boobaa léegi doontul faqir faqir du am fukki millions kon la ngay joxe ka nga koy jox warta ëpp nisaab léegi nag lu yées nisaab kon mën nga koo joxe yow nag yaay xool ba xam ndax maanaa ñii may jox su ma leen ko jox su ma leen joxee ka lu am solo danañ ci mën a dem liggéeyi su ko defee góor ba nga xam ne bu ëllëgee ñoom it dañuy génnee asaka te loolu mooy mooy liggéey ndax asaka daa bokk ci ay jubluwaayam daañu ngir xeex ñàkk xeex ñàkk jële ak ñàkk def def nit ñi ñu ñu woomal loolu bu fekkee am na moom ku ne nga jox ko loo xam ne mën na cee liggéey lu ko amal solo loolu mooy li gën bu fekkee loolu amul nag Ah, li am solo mooy yow génne ak asaka daal noo ko mën a joxe baax na li am solo daal la ngay génn la mën a génne génn nga la nga war a génne jox nga ko ña ko yeyoo ndax am na nag ban jamono lañ gën a bokk sopp ci génn asaka déedéet asaka moom li sharia da ko at ci benn mu am at lu mel na xaalis asaka xaalis par at nga koy génne saa yu amee at nga génnee ko wala sharia aj ko ci Euh, góob comme ne am mbay mbay dañ naa ne bis boo ñoree ba nga góob nga génne asaka foofu lañ koy aj wala euh, euh, lu mel ne tamit hmm, jur jur moom it naka noonu ci at lañ koy aj kon asaka ku ci alal ju ci defam at moo xam ne mooy atam nga xam ne bu agsee ci nga war a génne asaka loolu nag li mu tombeel baax na bu tombeek weeru baax na bu tombeek weeru gàmm baax na bu tombeek weeru màggal baax na bu tombeek beneen weer baax na moo tax li nit ñuy def day mel na moom asaka maanaam weeru koor ci lañ génn si asaka man loolu xamu jublaay lu mu doon bu fekkee ne daa tombeek si natt kooku xayrun moom waaye bu fekkee nag waroon na leen moom ca rajab wala ca chambaan kooku waruñoo xaar ba weeru koor ñu soo ko génnee bu ne daa am yeneen sarax yu ñu génne nag nga xam ne ngir coobarew la ngir ngir yàlla kese la waaye bokkut asa asaka jëleen waroon kooku moom soñ nañ ko kon daal amut at boo xam ne mooy atum lu may bëgg bi mu ware wallahu taala alam waaw yéen a ngi am jàmm dafa ceen yéen a ci jàmm baax ba waaw dama bëggoon ab leer la rek comme maanaam nga yeewu nga yeewu gént fekk nag dangaa gént dem sëy fekk waxtu wi jàll waxtu fajar ak yooyu boobaa maanaam yàq na koor wala déet parce maanaam daf daf maa dal ci fajar nag wax dëgg fa yàlla gént di sëy nga yeewoo sama tubaab ji xam naa ne tooy na bara taxit génn ci ndax yaat naa ko waram te may jóg di yées la sangu farata ay dix heures yooyu moo jot ndax yàpp naa ko waram déet sang bi may waaw bu dee gént sëy moom yaakaar naa tontoon nañ ko ca lenn ci jataay jàlloon waxoon nañ du yàq koor gént ci bëccëg weer koor yàqut koor waaye nit ki war nay góorgóorlu ba nga xam ne nag yi waral gént yépp mu moytu ko ndax léeg-léeg xalaat yu nit ki doon xalaat dana waral ñaari muy gént kon yooyu moom jaadu na nit ki jéem cee mucc la man waaye na sang farata moom war na ko waaye waru ci moom nag muy fay bisu koor boobu koor googu baax na kon wallaahu alam salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi seer na ngeen def ñu ngi nuyu bu baax ma doon laajte ndax xale bu ndaw boo xam ne majoragul am compte bancaire bu ñu ko defal pour bu màggee mën kaa jariñoo ndax am da ci génne azaka xale la nag amagul un an exemple mu ubbi ko compte ba xam chaque année ci génn azaka wala day bàyyi ba majeur waaw ñaareel question bi mooy na xam banque mu la lebalee kër nga di ko fay ba xam loolu dagat na jërë ngeen jëf. waaw alale xale moom asaka war na ja alale xale ci ngir mali mi ñu nekk asaka war na ca ni mu waree mag ne asaka day mel na ne islaam alal ja la waxal waaye waxut ak borom alal ja dama alal ja la xool loolu moo tax boo nekkoon bu alal ji nekkoon fii nga nekk fële ci États-Unis booy génne asaka asaka ji fo foqaraaw fii nga koy jox day alal ji la waxal kon gone asaka war na ko ni mu waree mag bu fekkee na sart ya daj ne te mooy mat na nisaab am na at jëm kaw kon kon bancaire bi saa yu at jotee rek bu fekkee la na ci nekk mat na nisaab nañ ko génneel asaka euh, question bi des laaj bi des mooy bi mu waxoon léegi bi mooy na banque mu la lebalee kër nga ko di ko fay ba xam loolu dagat na waaw banque bu la lebalee kër nga di ko fay ndax dagan wala loolu ma nga aji ma nga aj ci jëflante rek bu fekkee dalaa lebal lebal goo xam ne dara luy eh, lislaam li tere nekku ca booba dagan na bu fekkee daa am nag yoo xam ne lislaam daf koy tere yu nekk ca lebal ga lu mel ne intérêt yi am kooku moom daa araam intérêt daa araam ci ki koy jël waaye daa araam ba tey ci ki koy joxe jëflante yooyu moom dafa araam dëgg nag xam nañ nit ñu bare bare soxla woon nañ ko moo tax julli ñi bu ñu amoon fulla faydaay ubbi seen banque yoo xam ne ñooy saytu ñii aajowoo aajowoo googu ñuy jëflante ak ñoom noo xam ne euh, dañ leen mën a am kër ca jëflante ba du doon bu araam loolu mooy li gënoon wala sax ñu def li li ñuy tuddee saare muraabaxa nga xam ne banque bi dañoo tabaxal la kër bam mu kii wala tabax kër ba mu jekk mu ñëw ne la kër kër gi kaay ma jaay la ko nga may fay kër gi mën na caa def cent millions ne la kaay kër gi bu fekkee ne arrange na la ma jox la ko nga xam ne du doon lebal waaye dala koy jaay njaay mi nag bi taqsiit lay doon maanaam ci da ngay weeru ñu ne nga dugal nàngam cent mille lay def ne la kaay ma jaay la ko ci cent million cent dix millions su ko weer woon nga def nangam loolu daganoon na kooku am solution boobu xàll boobu mënoon nañ ko am bu fekk woon lislaam yi amoon na ñu ko doon jooyal ñoo xam ne daal ñoo doon liggéente nit ñi di eh, taxawee yooyu ba nga xam ne julli ñu bare bare bari guute yi ñuy dugg di def lu araam ca ñàkk moo nañ ca yóbbu boobaa dañ ci mën a moytu waaye nag maar asaf day mel ne moom ñu bare bari ci man ñu man lool ñu ngi nelaw waaye bu fekkoon amoon na daal autorité yu mën a taxawal loolu ak borom xaalis dugal seen alal ba nga xam ne dañu mën a dimbali ci côté boobu moom doon na baax def tamit nag euh, njombe njombe yu njombe yu rëy rëy njombe yu rek la mën a jur ndax ara lu day lu xam ne ku ko xam du ko faye benn dërëm riba rek musiba tàkk ci biirum nit ki la yàlla na jàll musal kilifa gi ngi siyaara bu wér a wér ak tey ñun dañoo amoon benn question bu ñu bëggoon a laaj maanaam woor bu pare di di brosse ndax lu baax la walla lu baaxul la salaamaaleykum waaw borosu benn mu am pat wala muy borosu kese bu dee borosu kese moom amul jafe-jafe ci ne du yàq koor ndax amul benn matière boo xam ne moom la ragal mu jàll ci biir lu may moog nit koy gàllax ne kese ñoo yam bu amee pat nag fu booy xool day mel borom xam ne léeg-léeg gis léeg gis jàpp li ñu xilaaf fi taswir ak xilaaf maanaam wuute bi mi ngi am rek ndax mën nañoo kat imaginer ni ki mën a jëfandikoo boros bi am pat ba noppi yëf fii du jàll ñi jàpp loolu dañ naan du yàqu ko ñi jàpp ne loolu mënu nit ki mënu cee mucc dañu naan kooram day yàqu kon yow miy jëfandikoo xoolal yow ndax yow man nga jëfandikoo pat bi boroso ba noppi te dara du jàll bis boo xam ne loolu mën nga ko sa koor moom loolu yàqu ko yaay mi nga xam da nga ci sikk sàkk nag wala nga jot ko man mii nga xam ne sama borosoo sama xaax ni ko damay gis ma ne bu pat bi génn man dama naan su ma ko def sama koor day day yàqu kon yëf foofu la demee koor moom dañ ko aj ci ndax jàll nag wala jàllu lépp luy jàll day yàqu lépp lu jàll du yàqu koor léegi nag ndax dañ jàll wala du jàll loolu mën naa am ci jëmmi nit ki ñoo xam ne mën nañ koo téye ak ñoo xam koo téye mën naa am ci jëmmi pat bi pat yoo am doole nga xam ne am doole di dem ak pat yoo xam ne ñoom soobuñ fa nga leen yem la fa lañu yem kon yëfi foofu rek mooy ajuwaay bi wallahu taala aalam jërëjëf suñ na Samba ci tontu yu am solo yooyu xam naa dañ ñëw ci laaj bu mujj bi rek léegi la wàcc fii mu mel ni kuy jëfandikoo xeeti tuufaay yi ndax bëccëgu weeru koor loolu day du ci ci téere Maliki booy jàng dañ naan la bën bën yi nga xam ne ñoo kawe mbàq gi jëm kaw lépp lu ci jaar ba àgg ca mbàq ga yàq na koor lépp lu ci jaar ba àgg ca bëri ga ca loo xam ne lu tooy la luy taxallul la wala luy toj la luy seey la kooku day yàq koor ñoom dañ naan nag kon moo xam ci gémmiñ la jaare wala ci bakkan wala ci nopp walla ci bët da yàq koor ca tuufaay moom boo ko jëfandikoo wala am na toxee boo ko jëfandikoo da nga yëg cafka gi ci sa biir loolu lay tegtal na ko ñi fi jàll na moo tax ak yàq kooram moom mooy méngoog li ñu jàng ci téere yi malik yi donte nag ci borom xam yu bees da nga gis ñuy wax ne ñuy wax yeneen wax waaye daal yàq koor mooy méngoog li ñu jàngoon ci téere yi wallahu taala aadam waa ndax ki nekk bit bitim réew mën naa génne muurum ko ci Sénégal wala déet waaw mën naa nekk mën nga nekk bitim réew wax waa Sénégal ñu génne la muurum koor loolu mën naa nekk waaye boobaa waa nag yow sab dund yow ngay xool xam muuru koor dañ naan xoolal li ngay dunde yow seen waa dëkk lañuy ñuy dunde nga génne ko bu dee fii moo tax dañ ceeb ak ay dugub ak yooyu noonu bu dee yow mi nekk fële ca Liban xoolal waa Liban la ñuy dunde boo koy génne fii tamit nag loolu ngay génne loolu moo tax yow mi nekk fi mën nga ko génneel ku nekk fële waaye boobu dundub kooka ngay xool euh, moo tax ci kafaaf dañuy ñëw insha allah day wax ne boo bëggee dundal boo bëggee génneel kenn ku fi nekkul na nga gëstu ba xam ab dundam moom wala nga xaar ba xam ab dund nga soo ko mën a génneel waaye mënoo ko génn rek ci tañaxu in tajhal aw tafqid ridal muzakka anhu fal azharu ladayhim al irka noonu borom ko wax incha allah dina ñëw ci buntu koor buñ ci àggee wallahu alam waaw ah, jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi doon booyee doon laaj ci laaj yu am solo yooyu rek ñi ngi sant bu baax suñ ma suñu Masamba Bousso ci tontu yu am solo yooyu du ko jaajëfal bu baax kon bu ko defee rek mën ngeen continuer di yónnee seen laaj ci whatsapp bi ak youtube bi ñu leen sant bu baax leen gërëm kon bu ko defee ñi ngi leen di sant di fàttali rek programme suba bi incha allah rabbi du ko ànd ak docteur Khadim Sylla ci thème bu am solo di wax foofu kon ñu ngi télé yi nga xam ne ñoo ko doon jàllale muy Touba Vision Mouride TV ak Bichir TV ak Académie Minane di leen di sant di leen gërëm kon bu ko defee subaa jàmm incha allah ci thème boobu am solo boobu jërë ngeen jëf.